yàlla sàkk ñu bëgg ñu ba defal ñu néeg néeg bi mu daal di def ci kaw euh, soit ardoise wala dara lu fermé wu daal di jël bunt defal ñu ah may ñu xel bu ñu defee bunt yàlla sàkk guddi ne guddi euh, bu lëndëmee ku nekk na nga dugg sa néeg looy def nga def ko fa léegi ñun sa commence par moi léegi ñun lu tax amatuñu sutura lu tax ñun yàlla defal ñu loolu yépp ah, au moins bu ñu respecté wul suñu bopp ñu respecté ko moom mi nga xamante ne moo ñu sàkk defal ñu guddi ak sutura mais ñun ñu jël suñu ay taat léegi def ko comme daal benn euh, affaire bu yomb daal ku nekk boo nekkee ak sa copain wala nga nekk ak sa jëkkër nga jël sa téléphone di filmer sa bopp qu'est-ce qu'il ban monde la ñu nekk ñun lan moo ñu dal ngay filmer sa bopp ci loo xamante ne dañ ne la téléphone téléphone ñu ne la euh, ak internet ñu ne la réseaux sociaux la téléphone nekk lu sophistiqué loo xamante ne mun nga laal fenn sax te doo ko xam yow nga nekk ak sa copain wala nga nekk ak sa jëkkër affaire yi neex nga jël sa téléphone di filmer sa bopp balaa may dee nag ñu def li ñuy def ba pare toog di jooy naan maa ngi jéggalu sama yaay bu ko yëgee nangam sàngam te yow yàlla defal la sutura ba defal la guddi defal la néeg ak lëndëm yow nga def loolu ci sa coobare bopp boo paree naan maa ngi jéggalu ni laa ko gisee woon war gis nga fii tànk génn wone ay taat jeexu fi ah ñi koy génnee ak di ko tasaare ak di ko partager du fi dañ parce que nit war nga nekk ak sa copain ngeen dund li ngeen di dund ci sutura te kenn du ko yëg looy wanewu looy filmer sa bopp téléphone sàkkoo ko da nga dem rek jënd ko téléphone moo nekk loo xamante ne dafa dafa dafa garaaw parce que am na fenn fooy dugg wala fooy laal surtout iPhone iPhone dafa nekk lu sensible loo xamante ne am ñi ko xam dëgg ñi xam iPhone dëgg duñ ko am parce que iPhone dafa garaaw te moytu leen téléphone iPhone yi ñi ko mënul yor bu ñu koy yor nañu bàyyi ñi ko mën a yor yor ko téléphone bañ koy indi sa te pour liggéey moo taxoon nga nekk fu sori ki nekk fu sori ngeen di jokkoo pour mu gën a gaaw mais léegi nit ñi dañ ciy waney taat di ci guerre di ci xeex ak di ci def lépp kañ ngeen di arrêté kañ lañuy ñuy arrêté sax laay wax di wili band seen bopp ah ci loo xamante ne nii kenn xamul lan la ba pare xale yi war a màgg man laa yërëm parce que xale yi avant dañ doon foowee football di foowee ay poupée di foowee ay morceau di foowee ay suuf mais léegi xale yi lu ñuy foowee internet te ñun ñi ñi nga xamante ne ñoo leen war a jox bon exemple lu bon rek lañu leen di woon ci internet bi xale yi nekk ci internet bi di gis loolu di ko copier donc suba affaire yi day gën a dangereux gën a metti ñu war a changer jikko yi defaraat toogaay yi ci ñëpp nag laay wax ça commence par mois solalaat wax yi ñu solalaat leen tubéy ah jëfin yi ñu solalaat leen yére comme ni ko maam yi doon defee ça commence par moi parce que nit boo joxe bon exemple danga nga ci jiital sa bopp que muy man que muy keneen amatuñu benn respect ci àddina bi ñu nekk kenn xamul nag lan la xamuñu benn jinne jóge fee soppi ñu wala changé ñu mais doy na waar fi mu nekk nii xale yi léegi internet lañuy ñuy foowee suba ba ngoon dañuy yor téléphone di manipuler di gis ay affaires yu garaaw di ko copier xam nga waxoon naa ci benn vidéo ne léegi góor ñi góor la ñu gën a préféré que jigéen ñu ne lu tax moo wax ko ku nekk di wax mais c'est vrai parce que jigéen ñi léegi amatuñu sutura taat léegi dafa lamba lamba lamba nit ñi dañ ko gis a gis a gis a gis ba safatul kenn dara arrêté yàlla daf ñu suturaal daf ñu sàkk suturaal ñu mais nañ am sutura ci suñu bopp tamit c'est quoi lii lan la nii ban monde la ñu nekk tey sama vidéo ci loolu la doon wax nañ jéem a changer soppi jikko yi ça commence par man nañu jéem a changer soppi jikko yi sinon dëkk bi day gën a garaaw tey sama vidéo ci loolu la doon wax I love you so much. Thank you.